Mhm. sëñ bi mhm. yomb na mais li mhm. jafe mooy gagné ba dérouler programme boobu loolu mooy li nga xam ni moom mooy li jafe par exemple tey pur lan lañ mën a wax yan chance la am yu ñu mën a teg loxo que ni war nañ mën a gagné présidentielle u 2024 bi Pape yan chance waaw merci beaucoup loolu c'est une question très très pertinente et très intéressante bu njëkk bi mooy sénégalais yi dañoo doyal sëkk ci li fi nekk xam nga li ñuy wax mooy sénégalais yi dañ daan folli mais 2024 dañuy fal incha allah loolu pur nag ñëw andi un candidat boo xam ne profilam sénégalais yi boo demee ci réseau sociaux yi boo demee fu nekk liñ la ciy wax xam nga ko ku ñëw ànd ak expérience liggéey su des problématiques de développement partout en Afrique mais surtout surtout ñu mobiliser wu ba nga xam ni au jour d'aujourd'hui programme bi ñu leen di bi ñu leen di proposer dina nekk programme boo xam ni nit ñi daañu ci gis seen bopp parce que xam nga Pape li am solo mooy aujourd'hui su xameetuñu suñu réew ñu on ne reconnaît plus notre pays li am solo mooy nos valeur ana suñuy valeur au jour d'aujourd'hui léegi loolu kan mooy responsable bi. mais pouvoir bi mooy responsable ñi fi nekk pendant pendant des. ñoom ñooy responsable valeur pendant des années mais éduca boo yoree am réew li nga war a taxaw sa taxaw mooy say valeur sa tradition sa éducation nga matal ko ba mu mat sa sa waa réew. au jour d'aujourd'hui nos valeurs on est en train de les perdre ñun au pur li ñu proposé c'est quand même nit ak nité. le sénégalais le nouveau type de sénégalais bi nga xam ni moom ci lañu war a liggéey sénégalais bi mën a am toutes les li mu soxla ci taxawaay li mu soxla ci formation li mu soxla ci ñu jàppale ko ba mu mën a jouer pleinement son role dans la société mm-hmm. mais loolu dafa am solo mais xam nga yor am réew di tabax ay infrastructure fàtte nit mais loolu musiba la ñun li ñu bëgg mooy xam nga développement mënul nekk moi j'ai su sur dans les sur les problématiques de développement depuis longtemps le capital humain mooy lu ëpp solo loo xam ne nit war na ci mën a gouvernement war na ko mën a maximiser capitaliser ko te loolu fu muy jaar mooy ci éducation fu muy jaar mooy ci formation fu muy jaar mooy ci formation citoyenne ba nit ki xam li nga xam ne loolu nga war a doon après maintenant su boobaa nga andi dérouler say problème say say say projet de développement nit ki dina xam boo ko defalee échangeur dina xam échangeur bi lu muy jariñ ak nu mu koy téye mais doo ko defal échangeur mu dawal oto jaar ci kawam. donc pour wax la loolu dafa am solo donc pour wax la ñun chance yu ñu am au jour d'aujourd'hui te j'en profite d'ailleurs pour fair un appel appel boobu mooy à toute l'opposition parce que il ne faut pas qu'on nous divertisse wax naa ko li am solo au jour d'aujourd'hui mooy ñu fexe dajaloo liggéey ensemble ci ñaar benn bi mooy mu wóor ñu ne le processus électoral mhm. très très très transparent ñu am toutes les informations toutes les données le fichier électoral ba léegi kenn gisu ko. d'accord dégg nga donc beneen bi mooy ñu fexe taxaw ñi fi nekk yàq réew mi ñu jëlee leen fi. loolu mooy dëgg. ok alors monsieur man li ngay wax yëpp dégguma ci.